الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد بوكي جلدي ما ngi dénk sama bopp الله yàlla di leen ko dénk ñu xam yu bari yi suñu boroom xéewal jaam bokk na ca la ca gën a màgg xéewalu xel mu mu defal nit suñu boroom ne teral naa doomu aadama ci jéeri ji ak ci géej gi wërsëgal naa ko ci yu tey gënal naa ko ci lu bari ci li ma bind ak gënal imaamul xurtubi rahimahullah nee na li wér mooy gënal boobu mi ngi ci xel ndax xel mooy tax ñuy togg doomu aadama jëf te xel moomu su demee ba ñàkk ko bu boobaa la mu gënoon yépp duutu leen ëppati ngëneel muy mala yeeg bayima yi bu boobaa dutu ëpp yooyu benn ngëneel wala sax ñoom ñu ëpp ko ngëneel ci xel moomu ci lay xamee boroomam tabaraka wa taala aq yi mu am ci moom ci war koo wéetal ci di ko jaamu du ko bokkaale ak dara xamitam lu mu koy jaamoo ca lam ko digal ci xel moomu ci lay déggee wax suñu borom tabaraka wa taala ci xel moomu moom lay mën a jëfandikoo ba egg ci xéewal yi ko suñu boroom tabaaraka wa taala defal ci xel moomu ci lay jaare ba dëggal yonent yi waaye nag ànd ak loolu lépp nag xel taxul nag mu mën a matal li doom aadama soxla lépp moo tax suñu borom tabaaraka ko taala yónni yonent yi ngir ñu mottali li nga xam ne doomu aadama bi ci xelum boppam ak xalaatam mënu caa yegg wàcce itam téere yi ngir mu doon loo xam ne mooy mottali xel la mënta xam waaye xel mi nag moo koy jàpp suñu borom ne suñu borom tabaraka taala moo leen génn ci seen biir yaay yi ngeen judd te booba xamu leen dara kenn àndaale wu fi xam-xam waaye àndaale ngeen nag luy maye xam-xam fu ñuy mën a jaar ba am xam-xam te mooy ab dégg mooy ab gis mooy am xel la la'allakum tashkuruun ndax ngeen sant xéewal googu leen borom bi defal man koo jëfandikoo ba mën a jariñoo jumtukaay yooyu mu leen jox borom bi ne bul topp loo xam ne amoo ca xam-xam jumtukaay yi nga am muy dégg bi ak gis bi ak xel mi yooyu mooy fi nga war a jaare ba xam looy bëgg a dugg lu nekk bu la ca toppandoo yóbbaale bu la ca fekk ca ay nit yóbbaale waaye na nga jëfandikoo sa ñett yooyu muy dégg bi gis bi xel mi ndax kat yooyu bu ëllëgee suñu boroom dana la ko laaj moo tax imaam saadi rahimahullah ci tafsir aaya boobu mu ne daal li wóor daal mooy jaam bi nga xam ne xam na ne danañ ko laaj lépp lu mu fi wax wala lu mu fi jëf danañ ko laaj itam cëram yii ko yàlla jox te li tax yàlla jox ko ko mooy mu jaamu yàlla mu xam ne danañ ko laaj lu mu doon jëfandikoo cëram yooyu nee na jaam boobu day li yey ci moom mooy mu waajal tontu mu waajal tontu ndax kat danañ la laaj ku ñuy laaj nag da war a laajal tontu. balaa bisub laaj ba ñëw mu ne tontu loolu nag du nekk ci lu dul jëfandikoo cër yooyu ci jaamu suñu borom tabaraka wa taala ak sellal ko diine te itam fekk cër yooyu ci lépp loo xam ne lu suñu borom tabaraka wa taala tere la lépp lu mu bañ xel mooy tax ñu togg doomu aadama jëf motax tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam na rufi al khalamu an salas yekati nañu khalima gi bind ci ñett anin naim afta yastayqis wa anis sabi afta yahtalim wa anil majnun afta yafiq ndax ñett ñoo ñep kenn ku ci ne sam xel nekatu fa ki nelaw am xelam nekatu fa amatul dara lu muy yek ndaw li itam xel mi matagut ki nga xamne da febar ba taggo kom xelam itam koku xel nekkatu fa motax tax togatu ñu leen jëf ngir way bu kawé bi nga xamne mom la xel am motax suñu borom tabaraka taala jaglel ko teranga waye mu ar ko ñongal ko ci sharia ci lepp lo xamne dana ko jenglo lepp lo xamne dana ko deungal lepp lo xamne dana ko neexal moo tax suñu boroom araamal lépp loo xam ne luy yàqum xel la lu koy jaxase la lu koy sànq la ci mbooleem luy màndalaate liy màndalaate nag yenn yi matière la muy lu ñuy naan walla lu ñuy xeeñ walla ay doom yu ñuy wan waaye am na ci loo xam ne it maanaa la muy ay wax yu ñuy wax muy allahu waxi neen yoo xam ne dara du ca tegu ci dëgg te doom aadama bi bu koy déglu mën naa nëxal am xelam mën na koo jëmloo fu mu warta jëm wa tax borom bi ne woon wa isa samiu laxwa aradu anhu bu ñu déggee ay neen muy wax yoo xam ne ki koy wax du ko delloo ci fenn lu muy ci xalaati boppam ak bànneexu boppam ak di dàkk bànneexi ñi muy waxal diine moom lu ci waay di wax te delloo ko ci alquran delloo ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loola du diine sa waxi bopp la suñu borom tabaraka wa taala xam la ne alquran ñim ciy waxal ñi mën a jariñu ci alquran mooy boroom xel yi jëfandikoo seen xel xel nag jëfandikoo ko am na juróomi tolluwaay bu jëkk bi mooy nga xellu na koo jëfandikoo sam xel yow mi jàpp ne yow mi nit nga am xel nga am bul sukkandiku ci xel xeli ñeneen ni nga xamee ne mënoo gis ci bëti keneen mënoo dégg ci noppi keneen mënoo dox ci tànki keneen naka noonu itam mënoo xalaat ci xelum keneen kon yàlla jox na lam xel na mu joxe nit ñi ay bët jox lay bët ngay xool jox leen i nopp jox lay nopp ngay dégg jox leen tànk jox lay tànk ngay dox yim jox nit yépp mu jox la ko noonu la la joxe am xel moo xam ne yow la ko jox ni ko joxe nit ñi te dana la ko laaj sa xel moomu la la topploo yaa xiloon yaa ci war a xel xello yaa ci war a xello gannaaw boo xelloo xel mooy indi xalaat mooy nga jëfandikoo xel mu bu baax xalaat mooy indi xam ñett yooyu moom lépp lu ñuy sàkku ci xam-xam ci àdduna soxla na ñett yooyu il faut nga xellu il faut nga xalaat il faut nga xam xamlu waaye yeneen ñaar ya ca topp nag loolu moom diine la jagoo muy yatazakkaroon mooy nañ ngay fàttaliku li nga xam ne xel mënu koo xam dañ koy fàttali rek moo tax gis nga alxuraan suñu borom tuddee ko az zikr inna nahnu nazzalna zikr yonent yi li ñu andi lépp euh, zikr la tudd إن هو إلا ذكر للعالمين موي ليغا خامني موم سونو بوروم بيندالي نكو تي ياو موي فطره واي نا خيل مولو كو داب داني نيو فاتلي وات لاكو ذكر بوبو سو امي نك فقهه ام يفقهون دال لي نيو كون اتا بي ميغي تامبلي تي يعقلون يتفكرون يعلمون يتذكرون يفقهون suñu borom ne kazalika nufassilu l ayat li qawmin yaqilun foofu la tàmbalee nee na aaya yi maa ngi koy faram fànce di ko leeral ci nit ñu am xel ñuy jëfandikoo seen xel teg ci ne kazalika nufassilu l ayat li qawmin yatafakkaruun aaya yi maa ngi koy faram fànce ci nit ñoo xam ne danañu xalaat teg ci ne kitaabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyan li qawmin yaalamuun téere bii nañ ko leeral nañ ko muy alquran joo xam ne ci làmmiñu arab bu set wecc la wàcc ci nit ñoo xam ne xam ne dal ni wa haasa siraatu rabbika mustaqiman qad fassalna al ayat li qawmin yazakkaruun yoon waa ngi nii jub xocc kooku moom diine la yee moom xam-xami àdduna yi moom boo ci jëfandikoo ñett yee rek day dal di mat jëfandikoo sam xel jëfandikoo sa xalaat dal di xam waye diine nak lolou du ca doy il faut nga am lu jóge feneen yazakaruun mooy li yonenti andi muy wahyu gi wahyu yu boko topé nak toppee muy andi fiqhu moo borom bi ne wa huwa allasi ansaakum min nafsin wahidah fa mustaqarrun wa mustawda qad fassalna al ayat li qaumin yafqahun gis nga kon benn bu ci nek qad fassalna al ayat li qaumin yaqilun qad fassalna al ayat li qaumin yatafakkarun qad fassalna al ayat li qawmin yaalamuun xad fassal na al ayat li qawmin yazakkaruun xad fassal na al ayat li qawmin yafqahuun kon moo lay xamal ne kon alxuraan kenn mënu e jariñu te yii mu wax jaaroo ci te ni nga koy taftalee it ca toftale ba nga koy toftalee jëfandikoo sam xel xalaat bu baax waaru ci kéemtaan yi ngay gis ak li ngay dégg loola di daal di andi xam waaye xam ba nag day yi nag la ngay xam fa nga koy jëlee. muy ñu fàttali la nga nangoo fàttaliku mooy li yonent yi soo ko jàngee itam gëm ko nag xel mi jàpp na ko waaye xol bi fas na ko loolu muy andi fiq moo gis nga borom bi ne walakin al munafiqina laa yafqahuun yafqahuun boobu nga xam ne mooy sobe ba mooy mooy dayoo xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin waxul yu allimu ne yufaqihu mooy la gën a kawe kon اسكو ما كان المؤمنون لينفروا li yanfiru kaafa falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddin li yatafaqahu fi ddin loola nga jaar ca yatazakkaroon ja jaar ci yaalamoon ja jaar ca yatafakkaroon ja jaar ci yaqiloon ja suñu borom tabaraka wa taala ŋàññi na ñi nga xamne dañoo neenal seenum xel bàyyi seenum xel fële jàpp ne daan ñoom amuñum xel bëgg sukkandiku ci xeli ñeneen ay nit rek lañ bëgg a topp te ki ngay topp nem xelam ngay topp fekkee xel mam lay jox moom jëfewu ko li mu tekki mooy bànnee xam la la jox joxulam xel ndax bu doon xel la mu dëggu lu mu la jox moo la cay jiitu lu mu la ne def ko moo baax da nga ko ca gis moom waaye ka lay wax ne defal nangam moo baax te moom doo ko ca gis mu def ko ku ko jegee doomam wala ku ko jegee du ko def loola xamal ne bànneexam la la jox dalay faje ay bànneexam waaye joxu la am xel moo tax borom bi ne inna charra dawaabi inda allah assummul bukkumul lasiina laa yaqilu ki yées ci bindee fi fa yàlla nee na mooy ñi tax dégg bi mu leen joxoon utiliser wuñ ko nangoo dégg dëgg dégg fu mu jógee rek jëlal yastamiuna al qawla fa yattabiuna ahsana waaye ñu sakk say nopp ba nga jàpp ne dëgg moom ci benn barab rek nga koy jëlee muy ña nga jàpp bàyyee seen bopp nga lu doo mën a wax dëgg yow itam même boo ko xamee doo ko ñemee wax nee na mooy ñooñu nga xam ne laa yaaqiloon dañoo jëfandikoowul seeni xel ñooñu ñoo yées ci bindee fi kon mala ñëpp sax ndax ab dawaab moom mooy lépp luy dox ci kaw suuf rek nee na inna charra dawaabi inda allah assummul bukkumul lasina laa yaqilu ñooñu mooy ñi nga xam ne borom bi nee soo leen nee kaay leen topp li yàlla wàcce wa isaa xiila lahum taalaw ila ma ansala allahu wa ila rasul qaalu xasbuna maa wajatna alayhi aba gis ne dañuy dépendre rek dañuy dépendre ñu ne ñun dey li ñu fekkoon suñuy baay ak suñuy maam doy na mu wax xalaat jéemuñu utiliser seenu xel jàpp nañ ne dañoo wékku ci ñeneen borom bi ne ah walaw kaana abaahum laa ya'lamuuna shay'an wala yahtadun ba ci sax bu fekkee seen baay yooyee xamuñu woon gindiku wuñ woon waaye rek ne ngeen da ngeen leen di topp ndax loolu ak nite la dëgg la su fekkee bàyyee dañoo gindi ko woon nekkoon ci njub loola mën nga leen a topp wala si na amanu wattabaatum suriyatuhum bi iman gis nga kon bàyyee nekkoon ci iman ak maam ya ñooña moom ca nga leen topp waaye ñi nga xam ne nekkuñ ca woon nga xam ne la nga leen toppe mooy rek ci ñoom laa soqi ko wala ñii laa fekkoon samay bàyyi ak samay maam doon ko topp borom bi da wax rek toppekat yooyu fa ñuy mujj neena wa barasu lillahi jamian buñ ne tëll ci kanamu yàlla bu ëllëgee kenn du làqu barasu ñëppay feñ amul làqu ci gannaaw kenn naan man diw laa àndal déedéet ñëppay taxaw ci kanamu yàlla wa barasu lillahi jamian su ko defee nag fa xaalat duafa lil lillazina istakbaru inna kunna lakum tab'an nam doon dépendre nek dépendance fi ci aduna di dépendre ci ay nit so wax mu ne man ma ngi ci gannaaw diw rek yowmal khiyamit it loolu la fay jëm bëgg wax ne ma ngi ci gannaaw diw motax muy wax ñam doon top fii ci aduna ne leen ah inna kunna lakum tabaan mun kër yéen la toppoon tey nag mbir maa ngi ni fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay ndax mbugalum yàlla mii tey sawaraa ngi nii di jër-jëri nu jàkkaarloog moom ndax mën ngeen nu cee fegal dara ñooñu ne leen xaalu ñu ne leen law hadana allahu la hadaynaakum bu nu juboon jubal leen tey nag kon sawaun alayna ajasina am sabarna tey moom nu saalit wala nu muñ ñoo yem ci nun maa lana min maxiis amul fu mën a rawe borom bi dala wax ba seen mbir ba tey de wa is yataxaajoona fi naar nee na bu ñuy xuloo ca safara mooy ñooñu doon toppe te toppe wuñ ci dëgg lu may dañoo topp ay nit ci seeni bànneex rek ñooñu itam réeral leen nangu ñu topp leen toppekat yi la tudde duafa ñi ñuy topp la tudde al mustakbiroon fa yaqulu duafa ñi néewoon doole ñi li la si na stakbaroo ñeel ña nga xam ne ñoom ñoo rëyoon newoon ñoo gën nit ñi ne leen inna kunna lakum tabaan fa hal antum muxdoona am naa nasiban min annaar ndax tey mën ngeen noo gàddul dara ci safara wàññil nu sunu safara wi nu yëg ngeen am loo xam ne yéen ko ci gàddu ñu leen inna kullun fiiha ñu leen ñun ñëpp ci lan ne di ñun ñëpp ak ci biir safara kon lu ma la ciy gàddu li nga ci am laa ci am inna allaha qad xakama bayna al ibad yàlla atte na ba borom bi delloo waxaat seen mbir ne yow ma tuqallabu wujuhuhum fi naar bis bu ñuy wëlbati seen xar kanam yi ci safara yaquluun ñu ne yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula ak a neexoon nu toppoon yàlla ak a neexoon nu toppoon yonente bi ñu ne waaw ku ngeen toppoon ñu ne inna ataana saadatana wa kubaraana nuñ leen def ñu ne fa addalluuna sabila ñun de sunu sang ya sunu ponkal ya suñu borom daraja ya suñu borom judd ya ñooña lan toppoon ñoñu fuñ ma ak yéen fa lo addalluuna sabila dañ leena sank gis nga la fa ñu mujj naan rabbana atihim dafayni min al wal anhum laanan kabira ki nga xamne ma so bëgg suuf tak ko ma so bëgg mu son ku ko tuddu nga xex tay nga nan yàlla bo lu mbugale ben mbugal ko ñaar yo yàlla yàlla nga leen rëbb rëbb mu maga maga mag xam nga kon fofa euh ànd ba ak noonu la jur ndax déglu won ci yàlla borom bi ne am na ci nit yi ñoo xam ne dañuy werante ci yàlla fi mu ne loolu jànguñu dara ci diine te loo leen wax ñu wax ba wër la wa min annaasi man yujaadilu fi llah bi xayri ilmin wa yattabiu kulla cheytaanin marid fa mu fekkee cheytaane bu féttéerlu waa ju daaru fit féttéerlu nekk fee di woote lu ne mu woote ko ci boppam waa jooju ku mel noonu lay topp ndax la muy wax daf koy neex yattabiu kulla cheytaanin marid te kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudillu te seytaane moom suñu borom dogal na képp ku ko féeteeg moom mu sànk la yonente bi sallallahu alayhi wasallam tere ab julit muy nekk al toppe immaa bu mu nekk al toppe jëlee nañ ci Xusayfa radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na laa takoonoo immaa bu leen nekk al toppe al toppe mooy kan mooy ko xam ne danaan in ahsana naasu ahsanna bu nit ñi defee lu baax ma def lu baax wa in zalamu zalamna bu ñu tooñee ma tooñ man daal nit ñi laa ànd rek fu ñu jëm ma jëm mune walakin wattinu anfusakum saxal len sen bopp jëmbat ko ci lu bax in ahsana nas an tuhsinu buñ ni rafetale ngeen rafetal wa in asa'u fala tuzlimu buñ de ñaawal ak atoñ yeen bu len toñ non la julit wara mel da yo wara yor programme bopam programme bopam ndax kat andi bi fi la bu defé ne ki nga andal fi da di continuer andi dem rek dedet bis bo duggé ci bambel rek fofu nga tàqali koog ñox sa bambelu bop la bis bu la yàlla at itam kulluhum aatihi yowmal xiyaamati fardan yow dong lay doon yowma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha bakkan bu nekk mooy ñëw di layel boppam kon nag fa yowma isin la yusalu an bihi insun wala jaan neena na keroog sa bakkaar bi nga def kenn du ko laaj kenn nit kenn du ko laaj jinn yow lañ koy laaj kon nag nit ki loolu wala xam fii jël ay responsabilité Fi dal nit lim la mën a moy jangal la mi ngi mel examen ki la mën dimbali jamono baña eggagul ca fañuy joxe résultat ya fañuy ñuy examen ba mu jangal la fi ci aduna jangal la waye yowmal khiyam ga nga naan mom la fa yaakaar fofa joxe résultat la bisu résultat mom ak porof jëriñu fa dara bisu joxe résultat nga naan ma di sama porof ñu ngi résultat yi nga ñëw taxaw ci koy jox nag waaye man di poro prof sàngam moom laa àndal koy sama prof ndax loolu dafa faa nga àdduna prof ba kay ca classe ba la waroon a jàngal xamal la ba bis boo defee examen mën a at mi waaye nag ba ñuy joxee résultat yi nag ngay doog a bëgg a dépendre te fekk na moom it sax moom it dañ koy jox ay résultat moom itam foofu moom ñëpp élève lañ ñëpp la ñuy corriger fa yow ma isin bu keroogee kullum li kulli mri in yow ma isin sha'nun yuxni kenn ku ne yor na mbir mu ko doy sëkk kon suñu borom wax na mujjug ñi nga xam ne dañoo jëfandikoo wul seeni xel xam nga xel nag dafa metti parce que jël sa responsabilité assumer say say mbir la nit ñu bari dañu bëgg démissionner ci seen bopp moo tax ñuy bëgg dépendance rek dafa metti jëfandikoo xel parce que xel mu ngi lay corriger logique la lay wax li war a am la lay wax te yow loolu bëggoo koo def da ngaa bëgg rek li gën a nooy gën a sedd moo tax nga ciy démissionné ñu baree bare ba dañuy démissionné ci seenum xel boo waxee ñu ne ah man de aw solo man man de man maa ngi ci gannaaw diw rek man de aw ma solo day day bañ am solo ndax boo amee solo solo soosu day tegu ci sa kaw moo tax mu bëgg a ñàkk solo fa ñuy mujj nag law kun naa nasmaw aw naqil gis nga bu fekkoon fekkoonte ne doo nañ dégg wala nu xellu bu nu xellu woon utiliser suñ xel yi kon maa kun naa fi asxaabi say suñ borom ne faatarafu bi tay nak reconnaître nañ seeni bakkar nangu nañ ne ñoo def kon nak fa soxqat li ashabi sawi suñu borom tabaaraku taala wax na ak jaam ñep ñëpp la waxal de ittabiu ndigal lolu ñep la ko yàlla jox ittabiu ma unsila ilaykum min rabbikum wala tattabiu min dunihi awliya xalilan ma tazakkaru yéen nit ñep top leen li ñu wàcce mu bayiko ci seen borom ñep ci yàpp parce que nit ñi dañ bëgg a def jiital ay nit waxe ñu ne yéen kay ñii ñooy sëriñ si ñii ñooy doomi soxna yi ñii kay ñooy kat yi man kay maa ngi ci gannaaw rek déedéet yaa ngi ñooñu yaa bëgg a séddale mbir yi noonu waaye yàlla ne mu binde ñooña la la binde xel ya mu jox ñooña jox na la ko xëy na yitte ja ñooña def ba jàng ba sut la yaa ko defut waaye lépp ñëpp a ko tolloole bis yi temps yi ñëpp a ko tolloole kenn du ne bis bi kat kii def na ci loo xam daf ma ëppale bis moom bisam dafa nek 48 heures man sama bes xeyna 24 heures rek la déedéet temps bi ñepp a ko bokkale fa ñuy rawaate kay mo gisee borom bi naan gaawantu leen saari'u ndax waxtu wi du la xaar sari'u ila maghfira sabiqu ila maghfira da ngay gaaw mi mel wa koy saxar yu la doon romb rek wago wona ñu ne na nga ci sànni dara mu yóbbaaleel la xam nga do noppul wago yu ne wif wif wif ci jall nga taxaw tim bagage bu bari ñu la wago wu jall rek sànni ci dara boy xef rek am wago wu jall te du la yóbbaaleel dara bisino lañ mel ay wago la wagoy saxar yu lay romb la dana ci am waga wo xamne bu ñewé rek ci ngay yéeg démalé moy bis bi lay yob wa taqo yawman turjauna fihi ila allah wa tan ko len bis ba nga xamne bu ñewé nag waga wo xamne bu ñewé mom du la fi ba kon nak waga yi la fi ba nañ la yobalé nañ la yobalé bagas bu baax laakin bagas bi nga mit amna bu baax am bu baax bagas bi nga moy aduna rek na ngay tan bu baax bi diko sànni ci bir waye amna ño xamne ñay sànni bu baaxut ba rek lañuy sànni mu den ko yobalé mom lo sànni rek mu yobalé ko kon moo tax mbir mi gaaw la laaj saari'u saabiqu innahum kaanu yusaari'uuna fi lxayraat wa hum laha saabiqun da ngay gaaw de doo taxaw ndax bis yi taxawul kon nag mbokk yi nañu góorgóorluwaat jàppaat suñu diine bu dëgër ndax kat diine fi mu ne ñu koy foyee dafa bari lool te jumtukaay yi nga xam ne dafa am léegi doomu aadama mën a toog fam mu toog daanaka di wax adduna bépp di ko dégg loolu moo tax ñu baree baree bare bari di tasaare ak neen di tasaare ak réeralaate ba tax na yooye ku koy déglu wala nga di ko topp te amoo ak ràññee boo wutul mën ngaa sànku te du ko yëg te nag du doonu lay fa suñu borom tabaraka wa taala inna kunna lakum tabaan jooju dafa am njariñ diw laa toppoon diw mooma tëru la bu keroogee wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain